assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi di sant sunu borom jant bo xamne amna fam tambale way amul mukk fu mu ci sunu jëm ak ci li wër ci tawfeexam ak jammam ak suturam ci nga xamanteni wëru ko ci nun te ne mi ngi koy sëmbatal ci nun ànd ak sunuy rëcc ci pas-pas ci kaddu ci jëf yépp te réewul mu dinu taw feexal nu war di dellu ci sunu xel ci waxtu wone nak ci jamm joji ak tawféex joji ak sutura soosi waxtu wu ñu di ci xalam te baña jekki ba ñak ko door delu ci mom waye waxtu wi ñu joxe yi lañ wara xalam ni du lu ko war ci nun mbaaxam la yermandem la tawféexam la jaglelam la ñi di ko ca cyant it ca waxtu woowee ndax cant kat day waral saxu xéewal dana warit dolliku ak xéewal kon fu ñu toll war nañ di ko sant ala kulli xaal di bàyyi it jàmm jim nu defal ñim ko xañ te du seenug doye di du seenug manki di seenug mata di coobaram rek la wér gim nu defalit ñu bàyyi xel ñam ko xañ xéewal yim nu joxit ñu bàyyi xel ñam ko xañ sutura sim nu defalit ñu bàyyi xel ñam ko xañ wiir gi mu defee li ñu bàyyi xel ñam ko xañ dund gi ñuy dund nit di fi bàyyi koy ñu bàyyi xel ñi nga xam jëlee na leen fi ci coobareem te bàyyee nañu fi te lépp di coobareem rek nag kon loolu jaam bi waxtu wu ne fu mu xëyee mbaa mu gont xelam war nay dem ci loolu ci lu nëbb ak ci lu feeñ dana ko dimbali lool te bañ ji topp rek sunu bakkan di wéy bàñ ji topp it sunu bànneex di wéy bañ ji topp it adduna ak nit ñi rekk di wéy di bàyyi xel it ni muy tàbbee ci sunuy xalaat ak ni muy xiiree ci bakkan ak bànneex ak yeneen yu noonu kon noo ngi sant yàlla sunu borom bu baax ci taw feexam jooju ndax suñu amee kàttanu toog kat yëkkati sunu kàddu nopp di ko dégg lépp moom la waaye doonuñ ca dara rawatina bu tàbbee ci nopp mu mën koo jàpp mën koo jariñoo ngir jëmm yàlla loolee du koy wax waaye jëmm yàlla sunu borom subhaanahu wa taala rek moo mën loolee kon nag kàddu yi déngante bi liñ ciy jublu mooy waxtu wu ne di bàyyi loo xel suñu bopp di bàyyi loo xel sunu bokki jullit di bàyyi loo xel nag képp koo xamante ni bindeef la ndax fi mu nekkat jullit dañuy wax ni sax kenn ci nun ak ngëmam du mat ndarab bu lim bëggal boppam daf ko bëggal jullit ñëpp loolu la ñu bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale waaye jàngale waat na ci geneen anam goo xamante ni moo xam ci alquran la wala ci hadisul qudsi la wala ci waxi boppam la mooy nu fonk lépp loo xamante ni rek bindeefum suñu borom la subhanahu wa taala kon ki dut ak jullit sax am na cër boo xamante ni war nga koo jox ndax la ngeen siq ak la ngeen bokk kon loolee fu ñu toll war nañ di ci def sunu yitte di ca def sunu kem kàttan di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sëlmal ci moom it julli ak sëlmal nag mooy jàmm ak xéewal yàlla bu mu dañ ñu dottiku ci moom ak mboolem ñi nga xamante ni bim feeñalee mbirum bi yàlla feeñalee mbiram ci moom mu wax leen ko nango nañ ko jàpp nañ ko gëm nañ ko jox ko seen jëmm jox ko seen alal jaare ko ci mom mu jëm ci yalla sunu borom and ak mom dox jëm ci yalla sunu borom ak leleen ci fekkoon lepp ci ay nat ak ay tis ak ay musiba ak bala yo yoo ni suñu borom dogal nako seen digeunte ak ñinga xamante wuute nañu ñom pas-pas bu bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam andi waye waaye terewul ñu muñul ko muñul rafet am ñoon seen bakkan ci la des am na ci ñoon seen lepp ci la des waye nak ñu dugg ci xewal ak dund goo xamante ni dootul dog mukk te du jeex mukk gannaaw yonent bi ñi ci ñi ci feñit muy ñi fi bàyyi gannaaw it ñu téyal ndono di ko téye jullit ñi di yaatu di tasaaroo ci gaa yu baax yi di feeñalaat ak a yeesalaat boobee pas-pas ak moomee jàngale ba ci Mawlana Sayxinal Xadiim yàlla na nu ko sa borom fayal te wammatal ko lépp lu mu ko tànnal àdduna ak alaaxira kon maa ngi nuyu jullit ñëpp di leen siyaara di leen baalu xaq te dellu njukkal ak sant ki nga xamante du jóg ci sunu xol te yaakaar naa ne ci xol yi yu bari it. muy mawlana cheikh saleh mbakke yaakaar naa ni barkidi mu ñu bari ñu ngi fàttaliku jamono bi nga xamante ni bàyyi koo na fi wéetal xol yi wéetal jëmm yi wéetalit jamono ci dundinam ci ci doxinam ci mandoom ci rafetalam ci yërmandeem ci bëgg doomu aadama ci di ko fàggul ci lépp loo xamante ni mën na koo jariñ ci diineem ak ci dundinam ak ci dundinu ëllëgam yowal xiyaama waye di lu ak ñaan ci boromam subhanahu wa taala suñu borom bindé fi yépp té amu ci won ben sette daan wax ak jëf lo xamanteni bëpp julit bo xamanteni roy na ca bëpp mindé mo xamanteni sax roy na ca dana tax aduna jak dana tax suñu alakhirah jak mu doonoon jëm jo xamanteni ku kawé won yitté la té sori ab gis-gis ba foko tak rek wessu nako defenaay dembu ko fi wala barki dembu Sering saleh ku sore ni mom gis-gis yombu ta gis yaakar na ne gis-gisam bu sori bo bi su fekkante ni jëfandikoo won nañ ko man na la wax ni waxuma la Senegal, waxuma la it Afrique way aduna bepp man na cee ko ci gis-gisee na mu sori euh nim doon yare ak nim mu bëggee woon rawati na rawatina ñëpp la ci yamale woon ci loolu waaye nituk boppam ni mu ko mënee sagale ni mu ko mënee suuturaale ni mu ko mënee dimbalee ci ci ci kanamu ñëpp donte ñëpp la jaboote waaye nag ku mënoon nitam la moom Serigne Saliou ku yërëmoon ndaw ñi la képp koo xamante ni nekkoon nga ci ak ronam soo ubbikoo te ànd ak yéene ak pas-pas te mën a root ndax nit di dana dem ca rootukaay ba te du fa jëlem ndox loo koy waral dafa yóbbaale luy senn wala yóbbaalewut dara dafa yóbbaale luy senn wala yóbbaalewut dara benn mooy ñàkk yéene wa illaa boo yéenee ba noppi am na loo ko ca yéene jota loola da yàq jëf loolu mooy tax ma ne nit dana dem ci rootukaay te du yóbbaale am ndox waaye Serigne Saliou képp ko nekkoon ci ak ronam doon ko dund dëgg dëgg faaw sa gis-gis sori nga nangoo liggéey doo ragal it da nga kawe it yitte da mën a muñ it da nga it danga am yërmande it doo gaaw a yokkat doo gaaw a yokkat du metti it nga daw faw nga am li ñuy wax maanaam am ak sax mu metti nga téye mu tàng nga téye loolu dafa am njariñ lool xeeti nit ñu mel noonu su leen adduna bi amoon wala buñ ko amee ba noppi di ko roy di ko feeñal dana nekk lu ama am solo dana nekk lu ama am njariñ ci humanité bépp nag ndax am na ñoo xam ne su mettee ñu dem buñ nekkoon fi béréb mu tàng tuuti ñu bëgg a dem bu ñu téye woon dara nattu feeñ ca ñu bëgg a daw fekk déedéet nit dafay am dëgër dafay am ak mën a muñ dafay amit ak woy nit bu dul jël risque du mën a àgg fa mu jëm mukk xalaa kulli xaal ngay jël risque bu métti bu diis bu tar door a mën a jàll nit ki nit ñi doo leen bàyyi xel yàlla sunu borom rek subhaanahu wa taala moom ngay bàyyi xel hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni deel jaamu yàlla ba ku la gis jàpp ni tey nga fi jóge boo xoolee seen sër yi da nga koy gis mu jeex ci tàkk ni mu waxee ni deel liggéey ba ku la gis jàpp ni doo fi jóg mukk boo xoolee seen sër yi da da ciy jeex tàkk jëfal sa àllaaxira kem na nga fay saxe da doon dunde loolu jëfal ci sa adduna it kem ni nga fay saxe it sax Saliou def doon dund loolu ndax boo xoolee bi muy fàggu xel koom di ko sanc booba sëriñ bi mën ngaa wax ne li mu yore ci daara danga naan lan lay war a doye jeneen daara te booba it mi ngi jëm ci ak mag yaakaar naa ne juróom-ñaar fukkam su ma tutut la koy dolleeku du bari xel it fa mu nekk sori na ba dem dayoo wenn yoon wu fa jëmit xamoo ko nu fa yóbbu am ab aw ko lu fa yóbbu ab courant xamoo ko yoon war a tax nekku fa woon booba dañ daan teggi di jaari jaabel nun ñi nga xamante ni 83 la ñuy jóge njàpp dem sanc ji fa njëkk loolu sax doon nañ sàmmi ji foofa ngir wetu njàppandal gi te amoon na ñàkkum ñax mu mitee mitee mitee tax ñu doon sàmm foofu booba ay baraak ñaari baraak ñoo nekkoon daara ja forage ba nekkoon ñaari baraak yi nekk fa daara ja nekkoon loola yàgg na booba kenn waxagul waxi tabax booba daara yi la defe naa ne moom la tuddoon mooy daarul xuddoos tey jii waaye yoonu jaabel wa nga daan jaar booba da nga naan fii àll bii moom nu fii nit mën a defe taxawale dar daf la jaaxal léegi nag ñun danoo xaw fooyooy lool ñàkk yitte lool ba foo ko takk weesu na yomb lool it ba foo ko takk weesu na ko boole ci nag bëgg dund bëgg tedd te loolu mënta nekk ndax boo xoolee mag ñi léeg-léeg nga dem dëkk boo xamante ni mag mi jóge woon bawal dem fa ca booba jamono lu ko fay war a mën a yóbbu képp soo ko imaginer doo doo ko man doo mën a xalaat lan moo ko fay war a mën a yóbbu ci boobu jamono ci mettit ci ñàkk yoon ci ñàkk ndox ak ni jamono bindoo woon Serigne Saliou boo ko xoolee wet goo ko mën di xool yitteem foo ko takk weesu na ko boo xoolantee Serigne Saliou wet goo ko mën di xool nag ci wàllu liggéey xam-xamam da caa fees dell. boo jëloon Serigne Saliou ji xilmu nujum xam-xamam da caa fees dell bu doon géographie la da ci xam-xamam da cay fees dell. Touba rek amoon na plan yu mu tëraloon yoo xam ne bu fekkoonte ni sàmmoon nañ ko fii na màggal buy jub mën naa laa wax ne benn embouteillage mën naa bañ a am. ak wàllu assenisement nga xamante ni mu xamee xam-xamu diine noon na xam-xame noonu la amee xam-xamu adduna am xel mi nag macha allah noon la meloon fees dell ak xam-xam te boo dikkee kat da ngay jàpp ni sëñ bi moom xamul dara ci li ngay wax da ngay yaakaar ne sax lii gone yi wax léegi dóor da ngay defe ne war nga koo mën a dóor te li ngay wax lépp moo la ko gën a xam fuuf ba noppi teg ca tànkam. wa illaa bu dee war na caa wax ak yow dana la ca wax lu ëpp sam xel yow ëpp sam njàng ëpp say xalaat fuuf sax. kon yitteem tolloon na foo xamante ni yaakaar naa ni suñ ko jëlee jariñoowaat jëmm ji seggaat ko settantal ko te Sénégal bañ a bañ di bàyyi xel diw fii la fii la féete léeg-léeg da nga gis ko xam day am complexe jàpp ni warumaa mën a roy ci kilifa murit wala kee jàpp ni warumaa mën a roy ci kilifa Tijaan wala warumaa mën a roy ci kilifa Laayeen wala kilifa Ñaseen wala kilifa keneen ku doon rek ci ak nekkut sax. ci biir turuq yi ndax day xat moom ëpp fi mu ne képp ku fi suñ boroom feeñal muy nit koo xam ne suñ borom ubbi na ko ci wàllu xel ubbi ko ci wàllu xalaat ñépp a ko war a jël jariñoo ko ku dut sax da ko war a jël fi mu ne kii dut ab jullit sax bu ko suñ borom feeñalee ci réew mi lam am ci xam-xam nit war koo dolli koo ci xel ak xalaat ci luy jëmmal àdduna juy tax nga mën am yóbbalu ëllëg loolee jullit bi daf ko war a jël ndax ju nit ñëpp loolu moo tax suñu borom dajale na ci kaw suuf dañoo war a jariñante donte bokkuñu waaso donte bokkuñu diine donte bokkuñu aw gisin ci àdduna du ñàkk nag am lu nu dajale la ñu dajale nag kenn ko ci nekk la leen dajale da ngeen koy fexee nu ngeen ko boolee mu nekk benn loolu da leen yokk doole ci réew moo man di dem boo gisee ñu naan nañ def waxtaan wu yaatu léeg-léeg am réew toog yaatu ñu ne war nañoo def waxtaan wu yaatu boole ca xeet yëpp suñ ko defee kenn ko ci nekk la ne fa moom ci xam-xam ak xelaat ñu génne ko suñ ko dajalee sotti ko suñ ko sëralee doxal ko ak yokkute rek lay jur ak jàmm ak tawfeex ak sutura benn Serigne Saliou boo seetloo Xelkom ci mujjam li doonoon yéeneem wala jotoon na ca sax xay na ci def ci ay jéego mooy ñu def ko toolub sëriñ Touba nga xamante ni ku fi nekkal sëñ Touba rek moo koy féetewoo moom nag mu doon sabab luwaat ci doli fi ñu wax doli yaakaar naa ni la ca xew lépp jurub di dikkaat nit ñi xam ñu ci bare bare xëy na xam nañ ko xëy na am na ñu ci opposé woon ci waa réew mi ci seenu gisin booba foofa la bëggoon a def moom muy ay toolam fii nag mu bàyyil ko ku fi nekkaliti suñ Tuubaa rek nekk fi nga xam ne projet yoon wi di am yépp fii dana ko mën a jël loolu man gis-gis bi ma ci seen dafa sore sore sore sore sori ba dem dayo xëy na nag bi lëlee suñu borom bi ca dogalee am nañu bukkuñu ci aw gis ndax xel ko sax bi mu ciy jot coow amoon na ci lële tamit noonu dafa daal di bàyyi fi continuer tool yi mu nekkoon moom di ci liggéey ni ko fi suñu borom euh, jëlee yàlla yàlla dolli ci moom tawfeexam ak xéewalam te njaboot gi sañ borom ca bopp ba naa Serigne Cheikh yàlla guddal seenu fan te wéral seenu yaram te dolli leen feex ak sutura ba gis-gis yu sori yooyu sëriñ bi amoon yëpp nu mën ko jëmmal ba ci njaboot gi ba ca sët sëtaat ya waaye tey boo boo xoolee boobu gisee woowu gisin rek tey daanaka projet yi ñuy wax ci yoonu murid yëpp ñuy wax université ay université université université fii ne mën na mën na jëmm yu dul jeex mën na cee jëmm ndax boo xoolee surface su Xelkom ni mu yaatoo ak léegi mbay niñ ko jamonolee niñ ko moderniser nga xamante ni tey boo jëloon tey benn hectare képp nga def ci serre moo xam këni nga ca def wala yeneen yoo xam ne dana koy aajowoo loolu waxuma la ña fay mën a xëy ci ay nit kenn mun na wax nu mu toll xeetu mango limon mboolem xeeti gàncax yooyu yëpp mbay noor ak nawet mën nañ cay liggéey te duñ ko mën a yëngal sax projet bu ma ne waxuma na biir réew mi sax mu waxuma la biir réew mi waaye réew mi yëpp daanaka li ñuy soxla ci wàllu bari na lu ñuy soxla ci wàllu mbay mën nañoo dem ba foofu képp day nekk pôle boo xamante ni daanaka genn wàll ga bu jëlut sax bu dee ñett la bu jëlut ñaar yi genn wàll ga lépp doon na mën di génn foofu. mu nekk ressource boo xamante ne xalaat bi def loolu jëmmal loolu ak boo fi mu tolluñ ci ay at kooku am na gisunu sori ci àdduna ndax àdduna du caagee ni nit ki wala jullit bi wala ku mën a doon danga naan ah lii su ko fi jëmmalee ndax danaa ko fi fekkee wala ndax sama dund wala ndax naa nga déedéet nit ki waxtu na del jëmmal ndax dafay am loo xamante ni jëmmal gi nag na ànd ak pas-pas na ànd ak pas-pas na yéene na ànd ak yitte muy loo xam ne luy jariñ la ci sa ragal yalla di jariñ sa njaboot ci seenu ragal yalla di jëm di jariñ jullit ni seenu ragal yalla di jariñ humanité nit ñi ci lu ñuy mëna a ci seenu nekkin lool dafa am solo lool sëriñ bi nak taxawayam kenn mënu ko misal ci kaw suuf ci yitem ndax bo sétlo képp ko xamanteni ni yar na la man nga lu ci ëpp suñ borom ñàkkul dana lay defal tawfex nga daan fanaan ak mom ci benn neek yaag moom ak yàlla rek waaye da ngay gis ñu kurus gi du teqali koog moom mukk foo toll yaa ngi dégg mi ngi mi ngi def nii bu dul guddi it fu mu toll nga gis ko ci njowaar fi mu nekkul ci nit ñi mi ngi ci kurusam mi ngi ci kaamil bi mi ngi ci nuuru daari ni mi ngi ci lo nangam musta neenal benn jamono musta neenal wenn waxtu léeg-léeg daa nga gis mu julli timis ba noppi fi mu jullee timis day randu neera ci jàkka yi bu dee ci njàpp nde la wala ci gor la wala feneen fu doon ña fa nekk danañ mën a seede loolu da gis mën na fa ne di naafila di naafila di naafila ba gee mën na julli gee nekkaat fa di naafila tolool du bokk ak dara li nga xamante ni moom lay def ci biirum néegam kon ni ma waxee léegi ak yittim yaatu jooju ci wàllu liggéey ak ci wàllu nosinu nosinu liggéey ak di ko tëralal ay plan yoo xamante ni boo ci jaaree liggéey ba dana jàppandi te dana taw feexe te dana dana am ngirte muy natija muy résiltat loolu dafa cee nekkoon koo xamante ni ni ko suñ borom maye woon sax dem na doyo lépp lu nit di jari di dund ci kaw suuf rek boo xoolee sëriñ bi moo la ko gënoon a xam foofu bari na sëriñ yu xëy na daw dugg duggutoon ci politique doxu ci woon waaye kuy xam politique rek moo la ko gën a xam waaw lu ci ne rek nam ca war a doxe dana xam nam ca war a doxe dana xam nam ca war a waxee ba lu doon du lor kenn waaw loolu mu ni fii ne awma cag defar awma cag yàq tekkiwut ni xamu ko da koo xamoon lool lu lépp dafa am njàngat moo xamante ni kilifa war na koo am ci digganteem ak ña ak ñamu njaboote jëmm la joo xam daal yaakaar naa ne bu ñu ko tegoon fi suñu kanam di ko nafar ci suñu diine ak ci suñu dundin yaakaar naa ne danañ ci jële xam-xam ak njariñ loo xamante ni du jeex mukk yàlla na ko suñu borom bi subhaanahu wa fayal kon maa ngi doole di dénk saa bopp te dénkaat saa yu bokki tari bi ak bépp jullit bi nangu sunu lay biire ngir yàlla te bañ a xool sunu matadi ak sunu doyadi ak sunu xeebu waaye la muy dégg ci kàddu yi mu di ko jariñ mu jàpp ko te jëmmi sunu borom rek tax nañuy sellal sunu yéene ñun ñëpp maa ngi koy dénk saa bopp te leen ko dénk fu ñu toll it nañuy sant ak a muñ àdduna ku fi nekk da ngay dangoo muñ kër la goo xamante ni faw jaam bi di muñ ndax dafa am nu ko suñ boroom bind te du suppiku faw am na ci yooyu muñ dong mooy doon saafara sax foo mën a jaar ba doo mooy tax li nuy naqari moo xam ci suñu mbokkum nit la ko suñu borom jaarale moo xam dañoo jékki-jékki yëg ko ci suñu bopp am na ci loo xamante ni muñ rek moom la si war a def boo wax boo jëlee nag cant bi ma jiitaloon danga nga mën a muñ muñin wo xamanteni ni dana nek muñin wu rafet aw yiw it ñu bañ ci xeb dara gannaaw cant gi ak muñ gi lay tax nak aw yiw nak fi nak kat ñi ngi romb téeméer ñi ngi romb ñaar téeméer ñi ngi romb jooni ñi ngi romb ñaar jooni te seguñu far ko loolu mooy ñàkk yéene ndax sarax dafa yaatu te yomb saraxé dafa yaatu lool te yomb gis nga nit ki man nay saraxé ci am am ci alalam waye man ngay saraxé ci say kaddu man ngay saraxe ci say jëf te saraxe dafa bari njariñ yoo xamante ni daf ko ëmb lool dañoo wax benn sarax rek dana fegal nit ki juróom-ñaari fukki deeyu ñaaw sarax dana waral nit ki suñu borom defal ko mujj gu rafet fegal ko mujj gu ñaaw sarax dafa bari ay njariñ day bañ day jañ balaa di ñot di xéewal kon sarax nañ ko fonk benn tibu ñam rek ñu saraxe ko ci ak kër mbindaan ma fa nekk di togg muy soxna say daan dooleem ci biir kër ga ak soxna si borom kër gi ak borom kër gi joxe paas bi benn tibu ñam buñ saraxe ngir yàlla ñoom ñëpp suñ borom mën na leen ca tàbbal aljana kon sarax lu kawe la waaye nag na fekk ñu yéene ko ci li ma wax léegi ndax bare na koo xam ne da ngay sarax rek da nga ne ah naa tibb saraxe nii rek waaye am yéene woo ci dara da nga ci yéene ngir yàlla kàdd gu neex sarax la kàdd gu neex sarax la fi mu ne say wayjur sa wayjur dee ko wooye tur wa gën a neex tur wa nga yaakaar ni mooy tur wa ko gën a neex dee ko wooye say wayjur moo xam sa yaay la moo xam sa baay la soo doom tudde ko tur wu neex tudd ko tur wu rafet te di ko ko wooye mu di ko dégg ci ab noppam loolu lépp sarax la maanaam jot li mbégte ci xol bi jullit bu mën a doon sarax la moo xam loo wax la wala comportement boo am la melawoo melawoo def la loolu sarax la ba ci sa soxna bul rëy tur wa nga yaakaar ni mooy tur wi ku gën a neex dee ko ko wooyee ak tur wa nu mu mën a tudde nag tamit eh, lu dagan lu dagan a nit muy baat bu neex dee ko wooyee te ba a rëy dafa am góor ñooñu dañoo xaw a rëy te loolu amul njariñ góor du rëy nit sax laay wax du rëy nit day woyof ndax fi mu nekkat léegi-léeg nga gis koo xam ne la muy réy ci soxnaam bu génnee ndaw si jëmut fenn moo ko koy def loo ko wax loo defal ko sa soxna si waxal ko sa soxna si du la wàññi dara dalay yokk donc du la tee doon li nga doon du la tee toll li nga toll du la tee doon daal ki nga doon soxna yi tamit noonu moom moo gën a te war a woyof tur woo yaakaar ne boo ko wooyee sa borom kër dina ko neex dee ko wooye woowu tur sarax la bul rëy nit ki sarax li ma wax lii lii jañ juróom-ñaari fukki deeyu ñaaw loolu sëñ bi loo ca mën a def xeeb ko te kàddu gu neex sarax la di dox rekk ab gis aw tiflit ci kaw yoon nga suul ko fi mu ne sarax la nit génn fii di laaj de bërëb sàngam nga ne ko yoon wii la walla diw laa doon laaj nga ne ko ma te fekk na doon nag lu tege ci yoon nit ñi léegi-léegi ñu tixit nañ fi ne nit dana dem ci béréb te du bëgg kenn yëg ni ci béréb sàngam la dem léegi-léeg nga daje nit ne ko ah, diw de daje nañ béréb sàngam moom yow moo ko santam moo la ko est-ce que yow ndax xam nga ne ndax diw mii nga dajal ci béréb sàngam bëgg na nga génn ne diw mii daje nañ ci béréb sàngam te loolu nit ñi man la fii ne léegi-léeg mën ngaa daje fii nit boo génnee diw ne daje nañ kër sëñ ba xamaana kat bëggul nga mu xamoon ne diw ñëwoon na fa xamoo lu muy dox xamoo lu ay tànkam dajé nga ak nit ci marché ba dajé nga ak diw biro sangam wala kër sangam wala ci place sangam bul dem fenn nan ah diw kat dajé nañ béréb sangam loolu nit ñi duñ ci bayyi xel té du lu ñuy def nit day té aw laminam léeg-léeg nak nit ñi yu bari duñ ko ayal té fekk man na yaq man na yaq lo xamante yow gannaaw ba nga né diw gis né ko sangam andi nga fitna ak jax-jax do xamante yow do ko mëna misal fenn ah kon eh, tegtal it da ci am loo xamante ni tegtal bu jub loola ca la bokk nit nga yóbbaale ko ci sa oto yooyu xeet yooyu yëpp sarax la waaw boo demee ci masalik sëriñ bi yooyu yëpp mi ngi ko fay leeral muy téere boo xamante ni nag taali bépp murit bu ne wala képp koo xamante ni namm naa dox jëm ci yàlla war na koo yër te dégg ko te di ko jëfe ngir jëmmi suñu borom waaye nag léegi noonu dañuy jël yu yomb yi rek teg fee jël ñi nga xamante ni seen poosa leen tax di wax ñu di leen déglu képp ku kuy wax ngir poosa moom na la wóor ni du la wax dëgg du ko def lu mu mën a wax ba nit ñi génn lu ci seen poos yi wax ko joxe dañ koy def te léegi diiwaankat yi ñu doon bañ ci pénc mi ñoo na ci pénc mu mag mi muy télé ak internet bi nit nag fu ñu waxee rek nga ni ëskey fu ñu waxee nga yuuxu te ci sa bakkan dong ko teg ne la wóori loolu bakkan dong la fu mu mën a yegg it bakkan rek la nit day diglu li ñu koy wax jàpp ko xool ba xam lii mooy li ma war a def mooy li ma war a wax mooy li ma war a jikk woo mooy li ma war a melo woo wala déet su ko waree mu def ko su ko wër mu tegg ko nële waaye lu laxasaay gi dëgër dëgër lu ëskee ji dëgër bari bari lu yuuxu yi bari bari yow sa bakkan dong ngay tànn ci wax ji la sa bakkan ngay jël aaki moo ko nga xam ne da nga ko war a jël daan ci sa bakkan tere ko yoon wi mu aw te du te gënut tere sa bànneex yoon wi mu aw te gënut tere sa àdduna sa bopp la nga xam ne daf lay yóbbee ci ak giraawaay yi tey ak ëllëg nga di ko daw déedéet waaye wax ji yëpp la nga cay seet mooy li dëppoo sa bakkan rek loolu ba tey ab jullit du ko def kon nañu fonk sarax yépp lu ñuy def it ñu am ci yéene nit dafay am yéene ju sell nit it bu mu di àtte nit nit yàlla rekk a ko mën a àtt yàlla sunu borom rek moo mën a àtt nit ndax mbir yi dafa xóot te jan ba foo ko takk rek weesu la ko fi ne nit bala nga ko àtte ci ay jëfam danga koo laaj mu tontu la nit bala nga ko àtte ci benn acte bu mu def danga koo war a laaj ñëw li nga def lan nga ci jublu wala ci wax jum wax da nga ko war a laaj yow li nga wax lan nga ci jublu ba mu wax la moom yéene jim intention bi mu am pour wax loolu wala def loolu nga door ko caa mën a àtte nit ñi nag fi mu ne ni ma koy waxee waxtu ne ki gis sa image nii nga toog nu ne mën na la ko àttee weer yi nga takk téere bi nga ŋàbb photo bi sa bu ci nekk kurus gi nga yore li nga sol xool ko nangam xool ko lii yow li ngay wax lépp sa xel rek nga ko teg tegoo ko fenn xamoo lan moo ne ci man te laajoo ma ko it beneen mbindéef bu man di doon it noonu rek danga koy romb muy dem baa nga séen ko muy dox baa nga gis ko mu nekk ci mbirum boppam sa yoon nekku ca nga àtte ko yow fi nga toog te moo ne xamoo lu ci yéenam de te sa xel dong nag ci ngay demee loolu ab jullit du ko def ab jullit dafay maandu ci mbokkum jullitam bul ko àtte ci ay jëfam ak waxam ndax xol mooy li am solo te fii ne li may wax waxtu wu ne fi mu ne nit man naa gis fii loo xamante ni yow na nga koy gisee du bokk ak na mu koy gisee ñun ñun ñi ne ci saal bi ñëpp fii ne mën nañoo bokk suñuy bët suñ ñeenti bët suñ ñaari bët tegandoo ci mel ni mbir te kenn ku ci nekk diggi noom ci am ak gis noom ci am dana wuuteeg nag na ko moroom ma di gisee ak diggi démb damay waxtaan fii ci Cheikh Amdi Moustapha al Karim xaalam ci yàlla ni mu yéeme woon ak ni mu doy waar may misaal ne fii ne boo masee ànd ak moom dem ci béréb manam képp ku bokk ci njabotu sëriñ bi bu lay jox loxo rek di tàqali kook sabam te yow mi ànd ak do doo dara do gis dara dalay jaxal da nga nan lan mo xew ak lan lañ fi wax ak lan lañ fi def bam yuxu wala bam def nangam xam nga kooku len ci biram kooku digganteem ak suñ borom la moko xam lam yëg ak lam dund moko xam lolou nak day lo xamanteni julit bi warut di bo mbokum julitam ci jëfam ak waxam te eggoo ci mom laaj ko mba mu wax la ne la ah, lii nga dégg ma wax ko kan nangam laa ci jublu waaye nit wax la nga ne gis nga kii li muy wax nangam dong la ci jublu li muy jëf nii ngay gis nangam dongu la ci jublu moo ne yow de xamoo ci dara te mandiwoo te rafetaloo te defooy defi jullit wa min xusni islaamil mar'i tarkuhu maa laa yahnihi lu sa yoon nekkut bokk na ci rafetum jullitub nit ki jaam bi jullit bi bokk na ci rafetal ak njullitam bàyyi lu yoonam nekkut loo xam amalu la njariñ tey amalu la njariñ ëllëg du la dolli ci jikko du la dolli ci dox du la dolli xaal ci yàlla maandul ca loola jullit bi waxtu ne li mu war a rëbb mooy ak njub lan mooy rëbb ak njub lépp luy dolli sa pas-pas ci yàlla lépp luy dolli sa yaqin ci yàlla lépp luy dolli sa ngëm-ngëm ci yàlla lépp luy dolli sa tawakkul ci yàlla lépp loo xamante ni dana dolli sa doyloo yàlla sunu borom subhaanahu wa nga nekk loola te maandu ci jëfi nit ka ca ndax gannaaw moom suñ boroom nee na kenn ku mu doon ci nun ëllëg danga nga moom ba jàpp yow rek la bindoon te moom moo lay laajal boppam jurut sonn ci kenn li war a sonn li nga war a sonn ci sa mbokkum jullit wala sa mbokkum bindéef daal mooy fexe koo jariñ te doo ko lor te gàddul ko lor yi bàyyi koo ci moom jëm si ci yow loolu mooy war a góor ab jullit waaye du leneen nit day xàmmee lim bokk ak lim moom ak li yoonum nekkut li nga moom téye ko wu rafet li sa yoon nekkut maanduta li nga bokk nit ñi seetal la cay sëb cër ci doxin wu rafet ci waxin wu rafet ci melawu rafet ci jëf ju rafet nga jëf ko ca ca la ca des nga ca kon maa ngi dénk saa bopp te di leen doolee dénk nanu wàkkilu ci yàlla tey sant yàlla tey góor-góorlu ndigal yi nañ ko fonk ndigal yàlla yi nañ ko fonk tere suñ borom yi nañ ko wettaliku suñ kem kàttan nañu tuub rëcc rëcc suñ kem kàttan ndax ay doomu aadama lañ dañuy juum ay rëcc rëcc dañuy gaar waaye nag nañuy tuub di dellu ci yàlla te di ko sant tey góor góorgóorlu te jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala rekk tax bu ñu xeeb kenn bu ñu doyadul kenn bu ñu duglu suñu yoon nekkutit kum doon ci nun na fonk julli juróom na fonk jàng alquranul karim na fonk sabar yàlla ci turam yu sell yi te di ko teewlu set ci sa jëmm set ci sa béréb tey gëttu lu ama am solo la lu ama am njariñ la tudd yàlla dafay dàq seytaane ñu jiital sunu kër gi sunu këru ëllëg ci sunu këru tey ndax këru ëllëg mooy sax de sunu këri tey yii lu mu jag jag jag jag jag dañuy xëy génne ñu ko rek xamuñu dañuy gont xamuñu dañuy xëy xamuñu fu sunu dund it di yem te nit gannaaw xamoo fu sa bakkan di yem del góor góorlu ba mel ne bëgg dee fekk la ca nga sax ca melo woo bëggul mu fekk la cay dawal daal di cay jug fa saasa ndax dee day bett loo xamante ni dalay bett te téyewoo sa bakkan ah mat naa def yitte mat naa def farlu kenn ci ñun téyewut bakkanam kenn ci ñun xamul day day xëy téen rek nag jàpp sa bopp jël si gët aj ko ci lu sori ne jàpp ni kuy gudd fan nga ah man nga caa rafet njort de waaye bul ca dogo dee ko ñaan yàlla it waaye xamal na yàlla it waxtu wu ne nag ab jaamam nga yàlla du sab jaam yow yaa di jaamam nun nooy ay jaamam mu sañ a sob paxandiku ci nun lu ko soob na mu ko soobe ak waxtu moom ko soobe te kenn ku man di doon coobare suñ borom yooyu mënoo dox digga moom kon nag nañuy góorlu bu baax di jiital suñu kërug ëllëg ci suñu kërug tey ci mbooleem suñuy jëf nag mbooleem suñu yéene ak mbooleem suñuy wax ndax tey day jeex ëllëg day des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana dénkaane jiital liy des ci liy jeex nanu fonk liggéey te buñ xeeb lenn nag lu dagana def buñ ko xeeb buñ ca am kersaat liggéey liggéey dafa am solo bari na kook la ko naqari lépp ñàkk liggéey képp ko ko teg ci boppam ci njabootam ba ci ay bokkam sax ku bëgg a tedd da ngay nangoo liggéey léeg-léeg nga gis ko mere ku ko defut dara dara waralu ko lu may ñàkk nangoo liggéey dong nit ka summi ko na ca naaj wa di liggi di gor di yett na ca all ba di dangti dangti lu ne di ko def dimbali wo ko ca lamay def dar ba yalla defal ko tawfiq nga japp ni li da ngeen ko wara bok wala nanga war na ma jox wala war na ma ca taxaw nangam tigo ko fenn lu way ci sa bakkan dong ndax ba def ak góorgóorloo ak yitteem yaa nga ne togg ca kel ga di ko xol mom muy ngos ngos ca naaj wax ba dañ dik nga defene dang ko wara a wala da ngeen ko wara bok boobaa kat nit ka lépp lu mu la ca sagale wala mu terale la ko ca wala mu suturaale la ko ca wala mu dimbali la ko ci santal yàlla te sant ko ba dee as góor nga te jullit ku yàlla li nga amit bul geestu ba ngay wutit yow mi amit bul geestu it ah ñooñu tegoon ca ker ga bu leen topp bu leen xool naan ah ba may wut kat ñi nga ñi woon ca kër ga toog di ma xool déedéet defal ngir yàlla yow tamit te bañ a seet loolu lépp bul xool it nag ña ngay defal ñu wëlbatiku na ci sab der déedéet foo geestoo nekk na ci sab der rekkat kat ne la woon ni say jëf jëmatut fenn ndax nit ñi ay nattu lañu suñ borom daf koy teg ci ci day lay xiir ci ñoom di la seet ba xam mooy tax jawit bul topp kenn kala doon ka doon bërig yow di xeex ak yow ba suñ boroom dogal yóbbu la fa mu la yóbbu ci tawfeex ko kawe it bul xool waa joojee bul ko seet seetal yàlla bi nga xamante ni kat moom dimbali na la sagal na la suturaal na la ba kii ba mu gàddu pexeem ba jàpp ne sa mbir fii lay yem sa liggéey fii lay yàqoo sa sa lépp jeex na yàlla jàllale la foofa santal yàlla ci jëmm jii la doon jéem a galgal ak xeex kat loo mën ci dimbali ko sagal ko suturaal ko dee ko def ngir yàlla te bul wëlbatiku mukk boo demoon ba nit ki sab noon yor paaka bëgg la cay rend yëf ya wëlbatiku bëgg a téye paaka ba paaka ba daal su boobaa gasal bu mu nga suul ko bu ko kenn gisati lolu moy war a ab julit kat lolu moy jikko ji rafet yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafno jangal dogal ku la dog jokk ko gennaw jikko ji rafet nak dañu war jihad ak sunu bop ba diko jima dundu ci nit ñi dara dox sa digganteeg nit nga nan duma ko wo duma waxate ak mom duma ko tuddati déedéet woo ko tuddu ko waxal ak mom lolu la lay sunu borom bi jangal lolu la bi yalla bi jangal silman qataka kula dok dog ko jokk Lol digalal yonent bi la bul top nit ñi bo leen topé do mané kenn ndax nit ñi ñepp ak mané yam ko ci xey jariñ ngon nga am ngant ci jariñ ko mu ne ci sab du gis ni jariñoon nga ko ci suba de déedéet mooy tax do kilo kilo dok nang ko dok jëlal yow njàngalem yonent bi te wut ci yalla ak bu yonentam te bañ a nit ñi ci seen i nak seen i ba melni man ma ci yees waye ñu ci bari xaw nañ ma fekk ci ku la xañ na ko jox ngir yàlla diwdee ba manee mënaluma ba mu amee amaluma yàlla mane la gan yëf yi wëlbati ku ñëw ci yow bu leen topp de santal yàlla ci ñoom dimbali leen sa kem kàttan képp ku ñaawal jëmale ci yow rafetalal jëmale ci moom diw mu mus ci sabab der ab safaan rek la ma mas di wax ab safaan rek la ma mas di jëf ab safaan rek la ma mas di yéene waaye dana xam ne maa moom la déet yonent bi sallallahu alayhi wasallam diggalu la lool de ay waaye rafetalal jëmale ci ki nga xamante ni ñaawal na jëmale ci yow loolu la la yonent bi sallallahu loolu la la yonent bi sallallahu alayhi wasallam diggal loolu nag yu yi ma wax nii nañ ko natt ci suñu bopp ba xam noo koy doxee noonu déet buñ tëlee bu doon fukk la it buñ ci tëlee buñ buñ tëlee jëlandoo fukk yëpp it nañ ci jël benn di ci jéem a ñoŋ ñoŋi di dem man na noo dem dema dem dem ba yegg ca fukkil ba ndax mbir mi kat yitte rek la waaye bu rëy bul def yu bari waaw sant yàlla muñ góorgóorlu rafetal te yàlla rekk tax loolu day maa koy dénk saa bopp te di ko dénk saa bokki tali bi nit ñi ci jikko rek la ñu ki gën ki gënal yàlla mooy ki gën a rafet jikko ci nit ñi kii gën a yonent kii gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëllëg it mooy gën a rafet jikko ci bindéef yi diine jikko la ni ma koy waxee jàmm la bari julleeg bari woor ak bari tudd yàlla ak jàngal xuraan fuñ la fekk yaa nga ak sa kur di tocc tocc fuñ la fekk yaa ak sa téere fuñ la fekk yaa ak sa jukki te fuñ tuddee nit nga teg ca lu yaa ngi denc sa bërigo na ci genn wàllu bërëb jàmbur te ngaa fexe sa bërigo bi woyof ci yow moo gën ngay jël liibaru jàmbur di ko ci dolli de boo jëlaatee feneen beneen liibar dolli ca su yàggee danga nga yenu ñaari ñaari bërigo te doo ci bàyyi xel waaw kon nun ñëpp nanu maase gën a góor góorlu gën a farlu ci lu baax nit jikko yar suñ koy wax mën a yar mooy feexe ba def ci nit ñi jikko ju rafet xam-xam li muy jariñ mooy mu yóbbu la ci jikko ju rafet xam-xam li muy jariñ mooy mu yóbbu la ci muñ yóbbu la ci ñàkk rëy yóbbu la ci ñàkk njistal yóbbu la ci di wax dëgg di jëf dëgg te yàlla tax yóbbu la ci gënal ëllëg ci tey yóbbu la ci woyof yóbbu la ci lewet yóbbu la ci ak muñ loolu mooy xam-xam bi ak njariñ waye bo feesoon del xam-xam kat te lim la bijj lepp moy gis sa bop xeb nit ni bëgg gis leen ma lu ñuy laaj nga defee ni man lañ ko wara bëgg ñu di la tuddu kun tuduk keneen ci lu baax sax mu naqari la loolu du jikkoy julit du jikkoy morit du jikkoy nit ku baax ak fu mëna fété ak julit du gis boppam di gisit ay jëfam kon lii nuy waxtaane di ko dénkante nañ ci jéem a natt suñu bopp li ma wax léegi su fekkente ni fukk la nañ jéem a jël benn bu yàggee yi ci des fekk su ni day mel ni matt nga Maolana Cheikh Abdoul Ahad Mbacké doon wax say moom gaa yu baax yàlla tëbb na leen kàttan yaru nañ ko wéy nañ nun mbay fañ yii doye di xeebu genn mat lañuy mën a jël ci jikko yooyu yi boo ci jëlee genn matt nag sart mooy bu mu laal suuf su tee laal suuf na nga koy fonke na nga koy warmaale noonu mako ko mbolo bu ci kenn jógee buñ ko gisut kenn lay dem seeti ko bu fekk ni nga def ki ci teral ko ci wekk ko ci wormal ko ci toppatoo ko day tok ñu ni waat na kenen dem bu dikké fekk ni nga def ñaar ñi ci rafetal ci fonk ci ci sagal ci sutural ci dimbali day far tok mbolo nak noonu waxe bu ca ñett jógee suñu leen di wëri mbooloo mu mépp ay jógandoo dem dangay fexe ba rëy bañ na ci yow gis nga rëy bu ci muccee benn matt gi bu nit ki fexee ba rëyut dana gañe lu bare bare bare bare bare bu ca topp fexe ba ñàkk a kañaan lu waaye am nga fexe ba yéene ko ko nit ki bu demee demee ba àgg ci jàpp na ni munta gën nit munta gën sax lu dul nit moo gën a doy de ci yàlla ci yàlla bind gisutu dara ci daraja jàpp ni moo gën kenn ci jëmmam walla ci jëfam wala ci melokaanam demit ba nit am mu yéene ko ko mu génn ci rëy génn ci kañaan lu nit am mu yéene ko ko ba mel ni moo ko am ca loolu bu ko nattee ci xolam muy dëgg ci moom du doon lu muy wax rek ah génn ci fen lu metti metti muy wax dëgg yett yooyu yaakaar naa ne bu benn bële jiitoo muy rëy deñ kañaan deñ wax lu du dëgg deñ ah ya ca des yëpp yaakaar naa dana wommatu yàlla nu yàlla dimbali dox suñu digganteeg seytaane dëgëral na ci siraatal mustaqima jéggal na ci suñuy rëcc rëcc musal na ci mépp ndog ak pakk ak musiba ak bala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf